musuma gis duma yu mel noonu waxuma la ma duma ko man de musuma gis kuñ ko duma wee jël seen ay tonfa mooy seen baton yooyu nga xamante ne dafa dëgër amuñu sens interdit ci sama yaram kanam bopp nopp bët fépp lañ doon dóor damaa baare baare ba looloo indi sama fracture bii ci sama loxo bi ndax ay baare pour bañ coup yi pour wàññi effet coup yi ci au niveau de mon visage et ñuy dóor di dóor dem naa ba benn moment su ma so bu ma sonnee pour moo mën a jëlaat tuuti air pour mën a nooy nooyiwaat tuuti ci vidéo yi ñu ko seetaan mën nañ ko confirmer maa ngi doon naan Cheikh Sow ndax mën naa wax Cheikh Sow ma wax parce que jàpp naa ne su ma waxee loolu chef bi dina arrêté loo élément bi ma nekk di pour mën maa déglu léegi saa su ma waxee loolu day arrêté day wax gars yi arrêté léegi arrêté boobu temps boobu ñuy arrêté buy ay quelques secondes dama ciy profité waat xaw a jëlaat air tuuti. ma ne ko ndax dëgg ma bëgg a dégg wala dangaa bëgg ma fenn mu ne ma wax ma dëgg bi ma ne ko dëgg bi mooy kenn yónniwu ma kenn yónniwu ma jox naa la sama téléphone fii nga kenn yónniwu ma j'avais été libre ma amee préoccupation ñu jàpp ma mu ne acawaat gars yi commencé dóor man daal dóor nañ ma ba benn moment di fàttali ne vingt trois heures maa ngi ci ay loxo maa ngi ci seen loxo déjà ba presque deux heures moins te amul benn moment bu ma toog noppal amul vingt trois heures ba deux heures moins deux heures du matin ñu may torturer après ci laa jékki tay parce que dañoo bëri wër ma nervis yeeg gendarme yi yëpp ñoo ànd def coalition doon ma torturer donc ñu ñi wax ni Pape Abdoulaye Touré ay nervis ko torturer ils n'ont pas amul euh, wax nañ dëgg ñi wax ni tamit Pape Abdoulaye Touré ay gendarme ñoo ko torturé wax nañu dëgg ndaxte ñaari identité yi ñoo def coalition doon ma torturé buñ may dóor flash yaa ngi tàkk gisatuma dara parce que projecteur yi sama bët bi man daal maa ngi baare rek man daal maa jékki saa yi gis xaali birig buñ ma sànni mu jóge ci ginnaaw gendarme yi ñëw ci man moo waral sama bopp bi xaroon bu ñu ma dóoree birig bi ma ma tombé dans l'inconfiance ma xam. li ma gën li ci gën a metti mooy bi ma xamee taxul ñu arrêté taxul ñu tiit taxul ñu raf dañu profité ci xëm boobu ma xëm ñu dóor ma ay monat mooy monat yooyu ngeen di gis ci image yi seere monat te période bu ñu may monat fekk na damm naa monat yi damm damm yu leen boole seere ko bu mu dëgër monaté ma par derrière monaté wu ma sax devant kon moo mën a protégé wu par derrière lañ ma monaté am nag accès total ci sama tête ci sama kanam ci sama bopp ak ci sama ay articulation def ma dos au sol ñoom seen ay terme la parce que dégg naa leen ko dos au bi ñu ma jaaxaan noowee fu muy ximiliku dama fekk benn gendarme kenn ci ñoom te jël seen ram ji diis yooyu wallahi fii ma ko teg ci baat ci diggante dënn bay baat pour neutraliser sama bopp j'étais au ma gis ñaari gendarme ku nekk jàpp te ñaari loxo bu mu sama ñaari tànk yi ñeneen ñi wër mi ki jëloon tànkam teg ko ci sama baat bi dafa jël goutte dix litres def ci ndox def ci suuf suuf boobu ngeen doon gis ci sama yaram ci image yi boobu la parce que xam naa bëgg nañ ma yee xam nañ ñu xam naa bëgg nañ ma yee ñu jaaxaan loo ma di ma sotti goutte dix litres bi ak suuf si muy dugg sama gémmiñ dugg sama ay bët fees dell ci sama ay nopp man bu muy ximmiliku wallahi azim damaa fogoon ni maa ngi dañ ma dañ ma mujjee tëmbal ci géej ba dam maa ngi nekk di law pour man dama nekk di noyé ah. bu muy ximilu ko te man dama boobu parce que j'ai failli me deux fois moo tax bu ma ximilu dama foog ne dañ maa sànni sax ci géej gi buñ ma sottee ndox ba ma ximilu ñu yëkkatiwaat ma tafaat ma ci miir kan moo la yónni kenn yónniwu ma ñu continué di dóor di dóor ci ay articulation sama tànk yi dañ ko mujjee tàllal dama toog ñu ne ma tàllalal sa ay tànk ba ma tàllal ko gendarme ma taxaw xaj ci tonfa ba ci loxoom bi sës mu dóor ci tànk yi looloo indi fracture bi ci tànk yi dafa dóor a dóor a ba su ma bànkee samay tànk ci genou yi lay dóor du ma ma dóor yu méttee méttee méttee dans des conditions atroces inhumaines bi ma demee ba sonn ma ne leen léegi est-ce ma rey ndax ma noppalu kenn ci gendarme yi génnee pistolet bi teg ko sama bopp na ma ndax ñu ñuy rey ci manifestation yi depuis deux mille vingt ak léegi yaa leen gën ne ma soo waxul ku la ku la yónni dañ parce que ñu ba léegi mujjul fenn lii gendarme moo ko wax. je défie la gendarmerie lii teg ma pistolet ci bopp. après bi ñu ma dóoree dóor dóor ci biir groupe bi ma doon dóor gis naa benn petit group bu doon décalé wu di sori groupe bi ma doon dóor mais bu ñuy dem kenn mu ngi laaj keneen ki ndax essence bi ñëw na bu ko déggee moomu essence damaa foogoon nag seen moto yi lañ ko war a sol wala seen oto yi mais nekkite essence bi beneen finalité la woon te bu ñu jàppee ba yóbbu ñu kaar ci laa dajeeg benn kenn ku ñu jàpp. expliqué ma ne ma fu ñu la doon dóoree sama cousin fa la dëkk sama cousin moom ma wax ci noppam sama gémmiñ ci gémmiñam sama nopp mu ne leen amoon na groupe ci ñenn ñu war a dóor yu ñëw ci côté fenêtre am di laajte ndax ca faaf gi ñëw na lan mooy jumtu lan mooy jubluwaay bi pour ñu taal ma après ñu ne man damaa bëggoon taal benn kër responsable ma man manœuvrer essence bi far mu jàpp ma lakk lii moo nekkoon seen objectif tentative de meurtre yàllaa ma dimbali de wallaahi ak taxawaayu sénégalais yi ak ñaan ñi nga xamante ne xëy na xamuma leen sax ak sama ay ñaan yu moo tax tey ma gàbb sama bakkan ba toog di jàkkaarlu yéen di waxtaan di leen nettali trajet yi bi nga xamante ni dund naa ko ci sama propre dëkk après dóor yi ñu metti du seen am benn gendarme du seen kenn ci voisins yu nekk foofu mu taxaw ci fenêtre ci kaw ci étage bi di filmer taal flash am flash boobu lañu seen mu daw ñëw si mais est duñu wàññi dóor yi parce que am na ko commencé filmer quoi sinon danañ ci am problème kooku noonu xaw ma ko xaw ma kan la waaye ni man Pape Abdoulaye Touré su ma toogee fii noonu ba léegi ginnaaw yàlla ak yonent bi ak sama ay ñaari ñaar yi ma doon ñaanal kookoo tax ndax bu ñu gisee caméra yi bu ñu gisee flash boobu ci lañu wàññi dóor yi ba pare jël décision à partir de ce moment ne dina yóbbu commissariat brigade bu Foire ñu ligoté ma par derrière un citoyen sénégalais défense de surcroît un étudiant amul benn arme ci moom fekk ñu dara ci man à sama téléphone ak sama portefeuille amul leneen benn élément bu ma mën a bu compromettant bu ñu fekk ci man ñu monoté ma par derrière non seulement monoté nañ ma amatuma benn défense. ñu jàpp ma di ma brutaliser di ma torturer torturer yu méttee méttee métti après ci la ñu indi seen pick-up bi ñu yóbbu ma ci ginnaaw sànni ma ci ginnaaw comme xar man maanaam tabaski su jotee da ngeen gis ay xar yu ñuy takk sànni leen ci ginnaaw 400 baat comme noonu lañ ma def day am na photo bu may bu buy wane kii bi sama kanam feeñu ci am na image yu ma ci gis photo boobu ci biir pick-up bi la noonu lañ ma sànnee ci ginnaaw. waaye bu ñu ma sànnee ci ginnaaw am na en attendant ñuy régler dañ koy yóbbu fii nañ ko kii ñuy suivre ay instruction ñenn ci gendarme yi dañoo continuer di ma torturer ba ci ginnaaw pick bi am na yenn soo ay sio yoo xamante ne couvert bi pour nga tëj ko day am benn verre benn benn weñ bu muy àndal nga da koy da nga koy kii waaw gis nga verre boobu xam nga day kii kii bi weñ boobu day dindeeku wallahi azim weñ boobu lañ dindi rek benn gendarme dindi fekk mu ci lépp oto mu koy dóor ci kanam ba dama jël sama kanam rëpp ko ci ci ci ci ci kat ci bi ci ci kii pour mën a rawale sama kanam ndaxte boobu temps sama kanam man xamatuma lu muy niróol ndaxte recevoir benn coup de pied boo xamante ne ci sama bët bi ba sama bët bi fa la jaaree woon ëfu ba ba tëju moo tax à benn bët laa doon xoolee. te bët bët ku boobu lu tax ma jël ko mooy ci biir torture yi dafa am benn nervi bu xàll gendarmerie ñëw ba ci man jël la ko tam génnee pompe à gaz pompe ma ko ci ay bët boobu fekk nañu sotti ma ndox ba pare ba pare imposé ma ne ma da ngay xool par force ñu foto te pompe à gaz baa ngi dugg sama bët amatuma usage de mes mains parce que mënate nañ ma par derrière may wut fu ma làkkatu ji pour bañ ñu yàq sama kanam bi ñu may wut comme kañ la wallaahi laa fu ma dem pour rawale sama kanam bàyyi leen ak sama yaram wallaahi azim ci laa ci laa dajee ci benn tànk gendarme bu sol ay ramjees wallaahi kuule ma dugal bule coup de pied bu la ma dóor ci bët moo waral sama bët bi amoon ay jafe-jafe ba ci lendemain bi lañ ko mujjee lañ ko mujjee ubbi ci ophtalmologue bu nekk section de recherche bu bu Colobane ni lañ ma yëgalee ci pick bi ci yoon bi maanaam diggante fi ñu ma jàpp liberté six extension ñu jël VDN bi war a dem brigade bu foire teewul du ma yaa ngi continuer ba léegi de je vous parle de deux heures moins là on m'a appréhendé vers vingt trois heures ba deux heures moins presque une heure et demie et quelques ñu nekkoon quatre gendarmes yi ñu ma boole ci gànnaaw na ma da tëdd nag ñu tëddloo ma parce que dañ doon bañ xëy na romb ay manifestants et tout ça ñu mën ma xàmmee ñu attaqué leen ñu tëddloo ma ci oto bi. continuer di ma dóor dóor yu méttee métti ba mujj gi bi doon dawal moo wàcc moo arrêté oto bi wàcc ne ki doo ki ma doon dóor ci ginnaaw arrêté dóor yi parce que euh, su deewee dinañ am problème kooku teg tonfaa bi jël ay loxo sama sikkim yi ak sama karoot yu ma amoon ci la doon jàpp di xëcc di bugg di jàpp di sëkk di xëcc gendarme li may wax nii ay gendarme ñoo ko def que ce soit clair ay gendarme ñoo def li may wax nii ci noonu dañ ma yóbbu brigade bu foire bi ma yegsee brigade bu foire ku ko xam xam nga ni étage bi foofu la ñuy recevoir parce que poste bi fa la nekk bi ñu yéegee ci escalier yi ba war a dugg ci poste ba fu mu ne ñu fekk fa benn gendarme bu doon ataaya ci poste bi mu jub doon joxe kaas pour dellu si bu muy bu muy avant muy dellu si ci yoon lañ daje ci couloir mu ne eh, kii kan ñu ne ko kii de benn manifestant wallahi tànkam la yëkkati maa ñu ma mën a teg ci ginnaaw mu yëq ma ko ci biir ba ma am problème euh, respiration ne ma loolu ba pare ne loolu mooy participation am ci mbir mi gendarme ne participation ne noonu ndaw talam merci beaucoup ma yegg ci ci poste gendarmerie foire ñu jël sama ay ñaari téléphone jël sama portefeuille parce que loolu rek laa yoroon di fàttali Sénégalais yi ne kagul sax yoruma ko wallaahi laa masque masque awma fekk ñu dara ci man ku doon kuy manifester dina dem sans masque ak man ni ma xamee ci réew mi sañ naa jël risque bi dem ci ay manifestation yu ñu interdire ba pare te du ma takk parce que balaa ñu may xàmmee di ma rey xalaatu ma même bu dul loolu sax ñu ay kilifa nañu ci réew mi am na yoo xamante ne jombale nañ ko suñu bopp parce que bëgguñu koo servir kaw loolu ci lañ tekkee monat yi ci condition yu métti nag ndax monat bi mu ngi fekk maa ngi dem ba loolu laal ci man day métti sama yaram bi am ay góom un peu bopp bi di xel yi sama karaw dafa yàgg sëkk dama yàgg sëkkal karaw mais ku taxaw sax gis ma di nga gis deret bi dafa mujjee coaguler ci ginnaaw ànd ak karaw gi ñu daal di may tekki dindi monat yi sànni ma ci seen cellule ba léegi kenn waxuma vous êtes en état d'arrestation ba léegi notifié bi ñu ma sama jaar daal bi ñu dugg see ci deux heures du matin et quelques ci la benn pick-up ñëw gaare yëpp ay gendarme yu jógee section de recherche bu fédéral bu nekk Dakar fii après laa koy soog a xam si gendarme bu euh, chef de poste bu mu ñëwee tijji cellule bi ak yeneen manifestant yi moo fekkoon dama tiit tellement que bu ñu ñëwee ma gis ma gis leen soo ñu tëj dama foogoon ne dañ may livrer nervi pour ñu terminer le travail. ma wax ñi ma bokkaloon ci cellule bi ne leen man maa ngi tudd Pape Abdoulaye Diop bokk ci mouvement Sénégal Moment Prioritaire bés boo leen ma gisatul ngir yàlla génn leen ngeen témoigner ne brigade bu foire lañ ma jëlee sànq ma parce que ñii dama jël xaw ma leen te soo leen kenn ba ci chef de poste maa ngi ko wax ne ko ñii ñii maa ngi nit maa nekkoon dañoo ñëw pour rey ma mu ne ma ñëwee gendarme lañ fédéral lañ nekk dañoo yóbbu